leur disparition devrait être inclue en principe dans la loi d'amnistie suite à cette annonce Elles sont passés à l'offensive pour ko exactement si offensive contre ki Modi xam nekk C'est euh, exactement euh, le juge du 3e cabinet Mom mi nga xam depuis euh, son éclatement en novembre 2022 Il a déposé une requête nag les familles de ces deux militaires sont tout engagés à engager des poursuites contre l'ancien régime bi nga ne na fi ak aussi ministre euh, Ismaël Madjofal, Fall ak euh, ñen ñi nga xam ne itam si wi alors la bataille euh, Malcolm ñu daal di batay ci walu si wu nu mel sànq yaa encore doon wax que ni maki a causé ay mal ci askan ce exactement nous exactement yi fait woon na trop et tant d'autres et tant d'autres euh, tay euh, Macky Sall tay mi ngi pavane tay nu ko que France lool nak daf ñuy permettre ñu ñëw ci euh, pétition bi nga encore une fois ko mais ñu gis ni ces familles de plus en plus ñu ngi découragé nak commencé décourager un peu est-ce que japp ni Macky Sall est intouchable dis euh, pour daal di topé quoi que ce soit pourtant ñom ils réclament juste que peut-être justice la di war a def liggéeyam si nga que doom exactement te itam balaa ñu gëna a ñu gis Macky Sall laaj ñu mëna expliquer sur ces sur ces actes euh, sur ces agissements entre 2019 mille li nga xam que 2023 man dama bokku ci ñi nga xamanteni ni dañu wax naan Macky Sall warul won ko bayyi sax mu génn réew. ok mais do xolé dafa taf tafee génn réewam. Mm. génn réew mi. Ablaye Wade bi mu ñàkkee pouvoir bi dafa woo famille politique am waxtaan ak ñoom jox leen ay orientation door a dem mais ki nga xamante ni Macky Sall bi mu ñàkkee pouvoir bi bi Bassirou le président ñëwee otomatiquement gan yi sax moo leen njëkk a dem moom après moom mu dem yoonam tey jii euh, président Macky Sall dañ ko war a topp ci li nga xamante ni. moom la def. Hmm. tey nag du ay personnes particulières ñoom ñoo ko mën a topp ndax mooy pétition boobu ngay wax tey état du Sénégal ci boppam moo ko mën a topp te assemblée mënoon na voté benn loi. Hmm. moo tax rupture war a am ñu war a changer assemblée teg fa ay nit ñu bees tàq ñi nga xamante ni aspiration réew mi lañu soxla la ñuy doxal assemblée nationale moom mooy laaj ne kii dañ ko war a mën a topp pour haute trahison. te doo xoolee war nañ ko mën a topp si haute trahison. Hmm. si li nga xamante ni moom mooy contrat yi nga xamante ni signé nañ ko. ressources yi nga xamante mom mo ball Sénégal hmm. yu ci bëri ñom dañ ko doon defe sen teeyu bakken dafa ñu ko ci intérêt askan wi kon lool ñom ñi ngi trahir li nga xamante moy peuple Sénégal hmm. ak leneen ak leneen yi nga xamante daf nañ ko ci mu bokku ci li melni haute trahison lool rek lañ ko mën topé du ay particulier ñom ñoko ko top ok té te état du Sénégal moko ko top fu mu nekk ñu jëliko hmm. ça me ça me donne euh, l'occasion de parler du président Macky Sall président Macky Sall euh, Mimi Touré euh, Aminata Touré on euh, a ci conférence de presse président Macky Sall sénégalais le président Macron est sénégalais Sénégal. parce que tu qui ki nga xamante ni moom mooy Sénégal bim, nommé signé a fait actuellement. Mm, mm. il en France. il travaille pour Macron bi muy instant signé était le président de la république. Mm, mm. en même temps ba palais tamit. maki commencé bi depuis palais. maki commencé na bi depuis palais. Mm. kon kon Sénégal ñun dañuy kon France mi ngi duggal loxom ba légui ci loxo ci ci ci Sénégal. président bi fi muy muy Macky Sall ñun dañ koy fay chaque mois parce que qui, xam ci Sénégal ba président APR. Mon parti alliance euh, pour la république bi fi mm. nekkoon. Mm. Macky Sall mooy seen président. le président parti politique bu que bir Sénégal ci ci travail pour l'intérêt de la France tu travail pour président Macron. Mm. lolou dafa ko li nga xamante nekul lu jaadu nekul lu jaar yoon. président dafa war démissionner ci liggéey bi nga euh, Macron jox nako mom continuer nga il est encore il est jeune wax <laughs> continuer li nga parti am wala mu ci parti bi dem ki nga Macron boba ñu français la nationalité est-ce que c'est sûr parce que Macky mi xam suñu ay coordonnées Macky mi xam suñu ay données Macky mi au cœur de notre base de données tay muy France de France des fois euh, ay euh, conflit d'entrée qui am que le Sénégal concrètement est-ce que le un risque pour euh, Emmanuel Macron que nouveau régime Ousmane position a été catégorique vers la France mais la renégociation des contrats et tant d'autres le président Diomaye le président de la République du Sénégal. bañul liggéey ak kenn. képp ku ñëw Sénégal bëgg fi liggéey wala nga bëgg a jokkoo ak ñun. Hmm. di liggéey ak ñun dafay doon li nga xamante ni day doon gagnant gañaa parce que foofu la àdduna toll foofu la Afrique toll te loolu la Ousmane Sonko doon doon incarné ba bind ko ci livre bi nga xamante ni mooy solution. Hmm. waratuñu nekk ànd nit di ko manji maanaam di ko ñaan. di ko ñaan te ba pare ressources toog sa sa dëkk. tay képp ku ñuy mën a liggéeyal dañuy mën a liggéey gagnant gagnant nga gagné Sénégal gis ci boppam nekkul tout simplement dañu ne dàq France. Mm. France mën na ñëw toog ànd ak Sénégal di liggéey mais liggéey bi kenn ku nekk da ci gis boppam da nga waxoon lu am solo nag ci concernant le président Macky Sall bi fi nekkoon. Mm. ak li mu xamal Sénégal ak li mu xamal Sénégal. tey xel dafa nanguwul yow ñu ne yow yaa nekk ex président de la République du Sénégal xam ay secret yu bëree bëree bëri. ba pare yàlla daf tey jii ngay liggéey beneen réew beneen njiitu réew kon suñu secret yu bëri di nga ko fa wili pande moo tax Macky Sall wax naa ko sànq dama koy waxaat dafa war a démissionné ci post bi nga xamante ni moom la yore ci APR. Hmm. du fekkee bugg koo bàyyi mu bàyyi liggéey bi nga xamante ni moom la ko Macron jox. ndaxte mënoo nekk bitim réew xam suñu secret yëpp di ko joxe ci heure bu la neexee te Macky Sall li mu fi def mi ngi nii tege. réew mi ni mu ko yàqee mi ngi nii ñun ñëpp gis nañ ko tey ñi nga xamante ni ñoom la àndal kenn ku ci nekk yaa ngi wut foo làqatu buggoo sax di wax ñi ñenn ñenn ñiy wax moom moo nekk bitim réew di leen waxloo. kon kooku noonu waruñu ko mën a bàyyi ak liberté ba pare mu nekk France ànd ak France ba pare yo yore fa ay nit yi nga xamante ni moom mooy marionnette bi di leen di di di leen manipuler. ñuy saltel li nga mm. Sénégal. Mm. des fois opposition lañu genn wax wax bi nga ni dara dañuy dem ba dañuy ridicule sax ci nga ni devant Sénégalais je réitère wax nga ko légui wax naa la ko. Mm. Macky Sall xam mo ndax président réew si ñaari mandat kon xam nga Sénégal. xam nga ressources naturelles cartographie parce que ña ngay liggéeyal xam nañu Sénégal ni mu ni mu won euh autant pour moi xam nañu France ni mu njette woon Sénégal tay njett bobu nonu ñu da fay continuer tay président Macky Sall jege Macron suñu secret ñu xamone dina ko ko wax motax té ñun dañu woté souveraineté souveraineté dafa bokku ci sa lépp nga ko yoral sa bopp lo mënul yore nga jox ko nit mais do ko joxé tamit mu am saytu nga si am mu ci am tay mën ñu dañu né pays souverain lañu bokalé suñu ancien président de la république dafa ñaaw dafa ñaaw. ci déggin ci déggin. ñu né Macky Sall bi fi nekkoon président tay il travaille pour la France loolu dafa ñaaw. alors si loolu mais malgré cela chaque mois mi ngi encaisser 4 millions 500 si Gafakay Sénégal en tant qu'un un statut.

Euh, peut-être ñi ko wër ak ñi mu dénkoon liggéey mun ne leen mais ki n'a xam que moo euh, le président amul daal lu muy rendre compte concrètement mais mais lolu waxuko ko ci si saret la hein? suñu culture euh, non suñu culture Sénégal dëkku jàmm la dëkku laamisoo la moo tax sax dañu pays de la teranga hmm. mais président dañ ko top, topp dañ koy top, ndax président doomu aadama la nit le fonctionnaire la bi nga xamante ni Sénégal doon liggéeyal

kenn mënu cee la mission parce que génération yi di ñëwaat ñun dañ leen a war a bàyyil legee leen li nga xamante ni vraiment mën nañ ci jaar pour mën a jëm ca kanam. tey haute trahison lañ mën a toppee président de la république te Macky Sall daf ko def. Hmm. sànq maa ngi expliqué ci contrat yi nga xamante ni signé nañ ko ci à va bi muy waaj a dem contrat yu bëri si lañ ko signé. lu mel ni ICS ñu ngi koy wax. Hmm. ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni haute trahison la. Hmm. mën nañ ci le président Macky Sall. kan ma koy topp c' pas tout simplement ay particulier wala pétition boobu noonu pétition bi. Hmm. mën na influence yi li nga xamante ni mooy décideurs yi ñiy décider c' est l' assemblée nationale ñoom ñoo fi nekkal peuple bi. tey dañu assemblée bu bees mun ay nit ñu bees ñi nga xamante Sénégal moo leen ñor ñu toog waxtaan ne ah président Macky dañoo bëgg mu ñëw wax ñu lii ak lii nan la demee fépp fu mu nekk ci àdduna boobaa du ko président bi fi nekk signé la jóge assemblée fu mu nekk dañ koy jëli indi ko duñ ko waree atte ñu atte ko parce que wax naa ko sànq le mal est tellement profond. Hmm. Macky bi muy dem dafa yàq réew mi soppi jukko yi ba mu garaaw tey loolu noonu duñ ko buggee defar. il faut ko justice dugg ci kon li may ñaan moom mooy ko assemblée bi ñu tas ko du jotee du demee ba jot du deux ans yi matin du jotee dañ koy tas wut assemblée bu bees teg Sénégal ci yeneen raaye teg Sénégal ci yeneen

alors c'est clair exactement nous sommes avec euh, Modou Malcolm Fall euh, si Info euh, une analyse par rapport que mm, alors si Macky Sall en ce qui concerne son rapatriement mais aussi pétition yi a sens alors nous avons parlant d'Assemblée nationale